Thank you. après quelques jours d'absence nous voilà de retour sur votre première chaîne de télémusicale du Sénégal Ouais, retour bii ñu def euh, vraiment donne leur loo xamante ni si nekkul lu ñu gënal tey nekkul lu gënal suñu ay téléspectateurs Ouais, nag le ko waral mooy mbas wala sax mi nga xamante ni si ba tey mu ngi ci réew mi waaye dese bi nga xamante ni mooy Thione Ballago Seck bu nu nee Thione Ballago mu légende boo xamante c'est si bégal na adina, bégal na ku nekk euh, waaye nag sunu borom jël ko ñu ci profité di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ci jaale képp koo xamante ni si sénégalais nga waaye di jale képp kuy musicien nekk ci réew mi sàkkam tumalaak ngay def art wala ngay def loo xamante ni si lu jëm ci culture la ñu ngi la koy jaale ma ànd nag tey agenda bi ak ki nga xamante ni si Binta Binta nag mooy borom lu bees waaye rejoindre nañu ci émission bi nga xamante ni si di agenda waaye tey suñu premier numéro bi sama rakk ji yaakaar naa ne bëggeewu ma ko woon nii waaw sama mag ji sàngooni biram jigéen dàngooni mboj mbaay bu gaa mbaay maa lay nuyu di la ziar mm. ah, di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy baaxoo di safoo di seetaan télémusique Sénégal tey nag dañu am naqar ndax ku gis nu ñu taxawee gis colin bi rek xam ne tey Sénégal tey moo perdre ki ñu perdre nag dafa nekk ki nga xamante ne icône la woon ci mim réew ah yor ay projet ya nga xamante ne yu baree bari bari tey nag suñu yaa yàlla suñu borom jële ko fii donc dañ koy ñaanal en ah, suuf yoof oyof ci kawam Papa ñu koy jaale képp ka nga xamante ne sësoon la ci moom rek di ko jaale waa Faramaren musique particulièrement à Wally Ballago Seck di ko jaale Ibrahima Khalil Seck di ko jaale Coumba Gawlo Seck ndax ñun ñoo perte ñun Sénégal ñun ñoo perte sama mag ji mbégte laay am chaque jour nag di jàkkaarloo. dëgg la mbégte la ñuy am rek. dëgg la mbégte la ñuy am di jàkkaarloo chaque jour ak sénégalais waaye tey nag agendar bi doon na agendar boo xamante ni si agendar bu triste lay doon agendar bu. bu bu bu bu métti sax la ñu ko mën a wax waaye lépp nag dañuy delloo lépp ci ki nga xamante ni si mooy yàlla sunu borom mi nu sàkk ndax mm. moom moo nu joxoon Papa te moo jëlaat Papa Thione ñun ñëpp suñu bis dina ñëw ñun ñëpp nañu xaar euh, kenn xamul kañ la kenn xamul nan la kenn xamul naka lay demee. Mm. waaye nañu fekk ci lu baax. Mm. ñuy jaale Papa euh, ki nga xamante ni mooy Waly Ballago Seck nga xamante ni si fi mu ne. moom la Sénégalais yi gën miin sax wala moom la ñu xam ci euh, doom yi nga xamante ne si Thione Ballago Seck am na ko waaye di ko jaale Seydina Alioune euh, nga xamante si moom suma frère la suma xarit la suma wëllëre la di ko jaale Mohamed Bintu Moumi waaye di ko jaal képp koo xamante ni si yaa ngi bokk ci askanu Faramareen te dañuy ànd ak yéen ci agenda ru tey bi dañuy dem am nañ ay éléments yoo xamante ni si dañ leen ko wan ndax fee nga xamante ni si mooy ca cimetière ba euh, yaakaar naa ni képp kuy autorité sama rakk ji. Mhm. Euh, bari woon na fa. Euh, ñu gis ni bi coon dëddoo. Mhm. Sénégal ñëpp jug. autorité yi jug nañu waykat yi jug nañu ñëpp a jug gunge ki nga xamante ni si mooy coon ndax boogaa Ouest Foire dong lañu bâche mais jàppal ni àdduna ñëpp bâche nañ. Mhm. du Ouest Foire kese. ndax ñëpp partagé douleur bi ak waa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

Papa john mu ñëw ci kër gi wala ñu fekk ci biir këram waaye sunu borom ñëw ak li nga xamante ni si mooy ndogalam waaye lii rek mooy àddina lii mooy àddina àddina chaque jour neex euh, bis buy neex di neex jàppal ni bis dina ñëw di muy naqari xam mm-hmm. nga Ibrahima Khalil Seck dama koy dégg mu am wax ju muy wax mm-hmm.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 pour présenter émission bob nga xamante ni si mooy CEDEAO en cœur ayca nañu dem seetaan ko Salam alaikum, salaamaaleykum waa Sénégal bii nag bii nag ñoo ko moom télé bii nag ñoo ko parce que c'est suñu télé la c'est une télé musicale pour la première fois sax mu am sax Sénégal une télé musicale moo tax bii moom ñoo mu télé musicale.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 salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Senegal ñetti yoon dama bëgg ngeen xool lii bu baax fi ñu bind bii suñu télé bi nga xam ne mooy télé musical bi jëkk am ci ñu bëgg man ak yéen ñëpp ñu àndandoo fay ci musical. télé musicale ndax affaire bi dina am caaj te euh, euh, na ci te vraiment ku ñu war a jàppale la parce que vous lekk télé musicale am Sénégal va bien. va bene va bene am na solo euh, kooku mooy ki nga xamante ni si mooy ki dëddu mu di coon bàllaago sekk ah ñun bu ñu gisee image yi euh, sunu yaram dafay daw ndax euh, lii la ñu xamoon ci waykat bi di Papa lii c'était en 2014 mu def capsule bi nga xamante ni si ñëpp gis nañ ni que période bi waykat yëpp ñu ngi def capsule jëm ci télémusique waaye moom mu bokk ci ñi ko ñu ko def et puis mu bokk ci ñi nga xamante ni si danoo fonde télé bi nga xamante ni si mooy télémusique Sénégal Binta. Boga toogee fii di wax ci moom fii ba mm. suba duñu fi jógee xam nga lu tax ndax mm. li mu def euh, ci réewum Sénégal dafa bëri mm. xam nga tey ku dem fekk ay xale tey dajale malien dajale gambien dajale ba dajale ay ivoirien pour ñu bokk liggéey bi kon xam nga ni kooku yoon na ay projet ya nga xamante ne nekkoon na euh, ci loxoom. Mhm. muy Papa balaa ko Seck mhm. kooku nga xamante ne icône la. icône la kenn mënul wax ci moom ndax icône la li mu def ci Sénégal dafa bëri. démb boo xoolee enterrement bi mhm. euh, gis nañu fii ku ci mel ni Ousmane Sonko. dañuy dem xooli élément Ousmane Sonko boobu nga xamante ne. déplacé wu na ah, ñu dem cimetière Yoff nga gis nu mu taxawoo Papa Thione. Ah. taxaw na Papa Thione Boga. doy na waar yéeme na ayca nanu ànd ak waa xam naa ne bu ko continuer moom ci plateau bi lay jooy waaye nañu dëgër nag nañu dëgër metti na lool waaye nañu dëgër te xam ni ab jaam bu tiis dalee ci kawam du ànd ak lu dul ngëm te xam ni lii mooy ndogal gi nga xamante ni su suñu borom moo ko moom mooy dogal mooy def lu ko neex ayca nañu ànd ak waa dem seetaani arrivé wu Ousmane Sonko suñu dellusee ci plateau bi nag woy yël liggéey bi nga xamante ni si mooy spécial agendaru Thione Ballago Seck ayca président Ousmane Sonko moom moo ñëw président Ousmane Sonko moom moo ñëw fii nga xamante Almeri assisté li nga xam ne mooy entraînement Thione Seck président Ousmane Sonko ñëw na assister lii di enterrement wu Thione Seck ndeysaan daw na yaram daw na yaram torop Mas masih Mas, saman, สามารถที่สามารถที่สามารถที่สามารถที่สามารถที่สามารถที่สามารถraay bi mu ngi noonu mu ngi noonu lii mu doon ay image yoo xamante ni si image yu triste la euh, fii ci Yoff nga xamante ni si euh, autorité bu nekk rek ci réew mi ñëw nga gunge si Euh, coon Ballago sekk ñu koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko ku ci mel ni Ousmane Sonko ah bari na bari na bu ñu limee dañuy juum bari na euh, bari na euh, autorité yoo xamante ni si ndax Sénégal bintaa kenn desul kenn desul autorité yi desuñu ah waykat yi desuñu ah jeune artistes yi jeune talent yi kenn desul ndax coon bi ñëpp yégee nouvelle bi nga xamante ni si moom la ñu wax ci sunu papa Thione Ballago sekk ñëpp kenn gëmul woon nouvelle bi mu doon image yoo xamante ni si yu triste la Binta dafa triste ndeysaan boo xoolee suñu papa Youssou Ndour fa mu toog mënul wax. Mhm. tàllal nañ ko micro boo gaa mënul prononcer un mot. ndax xol bu fees. Ah. Omar Pène mhm. Ismaïla loo mhm. ñoom Baxaw ñëpp ndeysaan ñëw taxawu. papa coon nag da koo liggéey. nee nañ ku liggéey fayee ko. la mu liggéey rek lañ ko fay. ndax Sénégal moo perte. dëgg du askanu Faramareen kese de ñun mm. ñëpp ñoo perte ku ci mel ni yow toogoon nga ak moom am nga lu bëree bëri la nga xamante ne yéen ñaar waroon ngeen ko def dëgg la suñu borom weddi dëgg la dëgg la addunaa ngi nii dëgg la am na solo maa dëgg la dëgg la am na solo li muy wax nii mooy doon firnde bi nga xamante ni si euh, bërki Demba Ndiaye man ak sama directeur général euh, danoo taal suñu ay oto dem seeti ji coon Ballago sekk bi ñu yeggee amna na projet tini si amon nañu ko euh, ci diggante Thione Sek ak Télé Musique Sénégal mu doonoon lo xamante si sori won na lool euh, sori won na lool lool lool ba nga xamante si 2021 bi euh, dañu doon xaar sax mbas mi xaw a wàññeeku tuuti rek su ko sénégalais yi gis ni que Thione Ballago dafa bok fii ci kër gi far malheureusement mana boobu ba ba daw ba ñuy toog ba ñuy waxtaan ba ñuy rëdd contrat yi ba ñuy signé ndekete suñu borom nee na lii yëpp du antu. Euh, Binta kenn du yàlla. noo kenn du yàlla suñu borom ndax nee nañ euh, képp kuy def rek. Mm-hmm. da ngay sabablu. Mm-hmm. ndax wax bu egg sax suñu borom la neex. ñun tey mën nañ taxaw fii boogaa mën naa pare ñu ne la pourtant Binta nga ne non non bi ma doon defandoo émission. yàlla suñu borom moo kéemaane. Mm-hmm. donc dinañ tàppe xol yi. surtout. surtout nañ tàppe xol yi. surtout di jëlale tey jéggale. te xam ne àdduna bi jeex na dara lu ñaaw xaju fi boo gisee témoignage bi mu def ak Youssou Ndour la ñu jubóole mu ne vingt cinq ans de waaw vingt cinq de de de lan la ko tuddatee maanaam ah. vingt cinq ah. ñoom ñaar duñu laale ah. ci deux heures de temps juboo nañ lépp baax papa coon ba mu waxee ba pare dafa sëngeem di jooy ndeysaan yusu nekk grand bul def ni hmm. kon nga xam ne amul solo tey xiiroo beex ngaayoo bi dara jaru ko fi xëccoo bi dara jaru ko fi boogaa ñu ñëpp dañuy dem kulli na seen saay xëcc mawti bakken bu ñam dund rek dina ñam Dongkonak suñu borom bu soxlaa nag hmm. moom mi ñu ko joxoon ñun dañuy ñaax donc nag hmm. nii la la suñu borom ko donc dañ koy suñu borom ah. rek am na solo dana koy sante yàlla sunu borom waaye nu yem ak foofu ak yéen ndax bu ñu nee télé musique Sénégal dafa doon télé boo xamante ni si dafa jël lépp luy programme am jagleel ko musique sénégalaise far malheureusement sunu borom dogal ni fi mu ne dañoo nekk ci tiis dañoo nekk ci nakar ndax heure bi ku xam ne ne agendar daan na fekk ñoom artiste invité daan na fekk ñuy waxtaanee carrière di waxtaanee projet waaye loolu yëpp tey dañu koo jël tegee ko de côté jël li nga xamante ni si mooy agendar jagleel ko euh, sunu légende bi nga xamante ni si moom la ñu perte ndax sànq dégg naa attentat naan un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle waaye tamit bu ñu nee Thione Ballago sekk dëddu na yaakaar naa ni tey harmonie dem na mélodie dem na ah waaye seede yi gën a rafet ci seede yi mooy ñi nga xamante ni si jege nañu ko xam Papa Thione euh, Papa Thione nag ku ko jege di nga xam ne nit ku baax la euh, ba tax na dañuy àndaat ak waa Régis dem seeti euh, Wally Seck mi nga xamante ni si mooy doomam sénégalais yi gën a xam li nga xamante ni si Wally dund na ko bi muy soog a agsi ñu ànd ci ak waa Régis dem seetaani élément bi suñu dellusee ci plateau bi gën a mën a wéyal waxtaan wi ndax tey spécial agendar la ak sunu baay bi nga xamante ni si mooy balaa ko Seck ay ca Waar is eigenlijk mu ngi noonu mu ngi noonu lii nag mu doon image yoo xamante ni si image yu doy waar la euh, Waly ku gis nii mu mel lii nag ku musul ñàkk jur doo ko xam mhm. période bi Waly toll ku musta am jur wu góor wu dëddu doo ko xam euh, moment bi Waly du gis mhm. moment bi Waly lépp dafay lëndam ci kanamam mhm. waaye gis nañ ñi nga xamante ni si ñoo ay proche am ni ñu ko dandee Euh, nga xamante ni si lii rek mooy euh, xarit lii mooy àndandoo àndandoo dafay ànd ak yow ci bu moment yu neex ak moment yu nakari mm-hmm. waaye gis nañ ni ñi nga xamante ni si ñoom ñoo ànd ak waale bi waale accès munul wax mënul def dara mu doon image yoo xamante ni si Binta boo koy xool da ngay xam ni yàlla rek daal moo fi nekk. mu doy waar loolu moo fi nekk boogaa déggoo dañu naan euh, yàlla bu la naree dimbali ci say biir wax nga koy xamee. dëgg la Wally Seck yàlla suñu borom da koo dimbali. Mm-hmm. ndax dimbali mënul weesu mbooloo ñëpp toog nga ne laminar Naar hmm. mooy taaw après laminar Naar hmm. teg na ci ku jigéen hmm. tegaat ci ku jigéen ne ma ci topp ginnaaw Lamine nekku fi man maay kilifa gi am solo am solo ci ay kàddu ci ay kàddu ci xale ci xale moo tax ñu ne yàlla bu la naree dimbali rek ci say kàddu nga koy mu nekk la nga moment yu metti woon la mais mu am dëgëraay Mhm. peut-être entourage am moo tax mhm. ndax Wally dëgër na mhm. dëgër na ba dugal pàppam ci biir suuf buggaa yombul de yombul yombul gis nañ fi ku fa ku fi sa baay laaku nga taxaw ne du ma dem ci armeer ya mais Wally taxaw na ñu war a sàppe kenn amul foo taxaw muy bëmax nit ñi di leen ñaan ngir jëmmi seeni Touba may leen ñu ñu jullee suñu baay te yàlla metti na boogaa doy na waar doy nawaar doy na waar dañuy ànd ak waa régie ba tey ndax tey agendar bi dafay spécial euh, lépp loo xamante ni si euh, sénégalais yi war nañu koo gis dinañ ko gis fii ci télémusique Sénégal nga xam ni Wally jàmbaar la ndax yaa ngi wax ni léegi euh, bi nga xamante ni si taxaw nañu pour jullee way juróom wu góor ànd na ak dal ànd na ak ndëgërlaay pour gën a mën a xamal mbooloo mi fa teewoon que nanu ko may euh, nit ñi arrière tuuti. pour ñu mhm. mën a taxaw jullee way juróom woowu. Mhm. mu doon ay image yoo xamante ni si nag euh, jàmbaara ko man. jàmbaara ko man jàmbaara ko man. jàmbaara ko man surtout nga nekk xale. nga nekk xale nga jiitee Mouhamed mu ngi fi. Mhm. Seydina Lune mu ngi fi. ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi. mais dafa taxaw taxawaayu papa taxaw taxawaayu kilifa. waale démb ku ko xool sa xel day dem ci con baa laa ko Seck. dëgg la mais nag boogaa ñuy baayam mm. sénégalais mm. dafa war a di dawal compréhension mm. am na ya nga xamante ne gis nañ ko ñaawlu nañ ko torop ñii di dem di filmer rafetul ndax ku mu dalul mënoo koo xam dëgg la dëgg nit di nekk ci naqar nga yor sa téléphone portable lool koo jaale ñëw ba tiim ko di ko filmer xam nga ni kooku du Wally Seck ba muy nangu téléphone bi sax tayu ko xolam moo jeex dafa ñàkk baayam donc sénégalais yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a mm-hmm. baax a baax mm-hmm. te mhm. xam ni dee du jaas. Mhm. mën na fëgg bunt bu nekk donc nay rafet. Mhm. nit bu amee naqar dangay ngay partager naqar bi ak moom bu amee bànneex nga partager bànneex bi ak moom. ñun nag yàlla daf ñu fee teg. pour ñuy wax. ndax ñu ñoo mën a waxal peuple sénégalais. ndax dañuy wax ñu ñuy dégg. te la musique Sénégal àddunaa koy seetaan. sénégalais ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax. muy rafet muy rafet am na solo muy rafet yaakaar naa ni lii mooy li nga xamante ni si moom la Binta wax xol lay waxee fi mu ne ndax ñàkk way jur dafa foor dañuy àndaat ak waa régie ba tey dem seetaani élément bi nga xamante ni si bi ñuy waajal euh, sunu way jur woowu nga xamante ni si mooy Thione Ballago sekk euh, comportement bi sénégalais am waaye waali euh, dal gi mu dal ba wax ak nit ñi nga xamante ni si mbooloo ma la muy bari bari bari mu ngi leen ñaan di leen saraxu pour ñu mën a arrière tuuti ñu mën a jullee way juróom woowu daal di koy jébbal suñu borom mu doon ay image yoo xamante ni si dañu ciy dellu euh, seetaan ko ànd ci ak waa Régis dellu siwaat ci plateau bi nee naa leen tey dañuy rendre hommage euh, Thione Ballago ay ca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 والتصفير أجمع أكثر أيا نفط أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقد عصاها واستقرت بها النوى ونلك المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله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 في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أكن أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده وقفت على باب النبي محمد ومن رام تري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصاع بخيف عليك الصلاة الله ثم السلام فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم السلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله السلام عليكم ورحمة الله salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi gis Fallou Dieng moom it ñu noonu di dem ayca mu ngi noonu mu ngi noonu image yi nag euh, doon na image yoo xamante ni si euh, dañuy jégalu sénégalais yi euh, mais defuñu ko pour heurter seen sensibilité mais c'est toujours ce que dañu bëgg woon sénégalais yi waali taxawaay bi nga xamante ni si am na ko ci way juróom wii di coon bàllaago sekk ndax yombul sa way jur ak ni way jur mel ci doom dëddu àdduna nga ànd ak dal gi ànd ak sa xel la ngay def nga xam ko waaye loolu rek waral ñu daal di jël vidéo bi wan leen ko yéen sunu ay téléspectateurs yi nii seetaan lii nag mu doon ay image yoo xamante ni si image la yoo xamante ni si ci xol rek la jëm mu doon ay image yu triste doon ay image yu métti waaye ñuy delluwaat ci sunu borom ah, di xam ni di delluwaat di xam ni ay jaam lanu ah, te ñun ñëpp ci suuf la ñuy mujjee kii nag di yaakaar naa ni euh, dafa doon koo xamante ni si Sénégal kenn dootul présenté Thione ah mu doon légende doon artiste international kon bu dëddoo àdduna mbooloo mi du bett kenn dañuy xam ni que Sénégal ñëpp ñooy jug ànd ak moom gunge ko jébbal ko suñu borom Binta euh, doy na waar yéeme na. Bouga hmm. Mbaye doy na waar doy na waar euh, ndax lépp lu. doom di defal euh, waajuram bu góor rekk moom Waly Ballago sekk defal na ko Papa Thione mm. Mm. Mm. lépp lu góor di defal waajuram moom Waly defal na ko Papa Thione ndax baayam gërëm na ko ba xëy dëddu dem bàyyi ko donc dañuy ñaanal ajaratu ki na Diouf yàlla may ko xolu muñ ñu ngi partager douleur bi nag ak ñoom boo gaam ñu ngi partagé douleur bi ak ñoom Binta nag tey dëgëral euh, dëgëral euh, te xam ni lii ak àddina ñoom ñoo ànd euh, ndax dee moom yaakaar naa ni moom dañuy dañuy jéem a xam ni que ñun ñëpp. suñu bis dina ñëw yàlla na yeex kenn xamul nan la moom laa wax léegi ci commencement bi kenn xamul naka la waaye dañuy delluwaat sàbbaal suñu borom tey xam ni moom mooy kiy dogal mu doon ay moment yoo xamante ni si moment yu difficile la yoo xamante ni si pour nga mën koo dékku faaw nga doon euh, jàmbaar dëgg waal yi nag euh, euh, dañu koy masawu di ko jaale encore une fois waaye tamit di ko encouragé di ko wax ni que dégg nañu message bi Youssou Ndour wax mu ne boo amee woy jur wu góor wu dëddu àdduna dafa mel ni ñu jël gone yóbbu ko ba ci digg àll bala fa ngay débrouiller sa bopp ba mën a jariñu waali nag danu koy dañu koy dañu koy dañu koy encouragé di ko wax ne euh, lii mooy àddina àddina moom ak lii ñoo ànd ñun ñu jot a am ay wayjur yu ñu ñàkk Binta jot na noo xam lii euh, ku ci mel ni man sama papa bi mu génnee àdduna 2011 nii la demee woon da ngay doon jàmbaar ndax da ngay xam ni yaay góor ci kër gi yaa war a mën a wane exemple boo xamante ni si kenn du la xool di yuux wala kenn du la xool di jooy nga xam ni sa wayjur wu góor yow rek la dese woon nga daal di koy jëbal suñu borom image yi. Euh, dafa c'est douloureux boogaa uh-huh. ku xool mbooloo bi topp Papa Thione Ah, ku xool mbooloo bi nga xamante ne ànd na ak Waly Ballago Seck ku xool démb li nekkoon Ouest Foire xool démb li nekk ci armeeru Yoff nga xam hmm. icône dëgg hmm. moo daanu hmm. mooy Thione Ballago Seck il tout fait way na lu ne way na sonn naa na seytaane lu ne. way na way na apartheid. way na way na lu ne ba pare yoroon ay projet hmm. est-ce que xam nga ni ci 4 avril bi hmm. dafa waroon génne album. dafa waroon génne album bi. 4 avril Papa Thione dafa waroon génne album. Ah. nii la ko suñu boroom bëggee. Hmm. donc dañuy jëlaat lépp te ko ci loxo Wally ko Seck. mu doxal rek te xam ne yan bi diis na. mënut a oyof de. mënut a oyof. ndax li bootu ci ginnaawam dafa bëri. donc dañ koy ñaanal rek yàlla gën a dëgëral taxawaayam. Wally. doxal rek bul geesu ndax ku am ngërëmal waajur boo tëddee war ngaa mën a nelaw boogaa ku xool ci boogaa mbaay te ajaratu maama mbaay buy wax ci yow xool yëpp day daal di tooy laaj ndeysaan sama dafa nekk la nga xamante ne ci waajur dafa nekk lu doy waar lu sensible dëgg ñu naan mbaam wékk na doomam waaye bañu ko dëgg la dëgg waali balaago sekk dañ koy ñaanal rek mhm. yan wi mënta oyof de mais gëm naa ni gaynde la te dina ko dépp ndax Youssou Ndour wax na ko démb mhm. waaye gaynde la te dina ko dépp mhm. am na solo am na solo am na solo euh, tey nag agendar bi dañu ko jël jagleel ko euh, suñu wajur yi nga xamante ne si moo di Thione Ballago Seck bu ne Thione Ballago Seck nag légende la ci réew mi légende la ci bitim réew ndax sénégalais yi xam nañ euh, liggéey bu rafet bi nga xamante ne si def na ko bi muy génn àdduna mu ngi amoon âge 66 ans damaa mës a dégg am ku ko seeti di wax ak moom mu ne ko at ak yeneent bi amoon dépassé naa ko kon fi ne lu ma dund rek bénéfice la moom xamoon na loolu mhm. ba ku ko jege di ngay xam ni ku jullite la ku mhm. fonkoon waxtu yu juróom la boo demee këram di nga fa fekk jàkk joo xamante ni si def na ko fa mhm. euh, bu heure julli jotee ak loo mënti toog di waxtaan contrat bu mu mënti doon con sekk dina la wax ne la jugal ñu julli bu ñu jullee ba pare soog a yeegale soog a yeegale liggéey bi ay ayca Aïcha Binta mu doon ay seede. mooy témoignage bi femme bi doon wax rek ndax nee na dafa tegle ñaari fan. Mhm. Euh, di dem kër Papa Thion nee na bu demee kër mhm. Papa Thion toog waxtu julli. Mhm. day jot ñëpp dañuy jàpp julli. coon remarqué ko ba mu des deux jours ba mu def deux jours. Papa Thion nee ko mais yow lu tax doo jàpp julli. mu ne ko dara papa coon ne ko jugal mm. mu jug mu jox ko satala mm. mu jàpp mm. julli donc julliteem wër na àdduna ba pare musta mus musta taxaw ci kaw seen di way ba ñu noddu fajar déedéet loolu remarqué nañu ko ci papa coon boo gisee papa con bu commencé diggante ay soirée une heure du matin la doon tàmbali xam nga nit ñi deux heures la ñuy tàmbali moom une heure lay commencé trois heures trente quatre heures fu mu jotee papa con wàcc na man dama am benn dibiteri ba nga xamante ne sama koñ la nekk dibiteri bi dafa mondial mm. mm. Papa Thione heure bu daan jógee sayal mm. bu tëggee ba pare ci dibiteri boobu lay ñëw reere waa Medina xam nañ bu baax li may wax dëgg la dëgg la julli fajar taalaat otoom dem ñibbi donc mu nekkoon nit ka nga xamante ne yar nag ay doomam yar ay doomam mm-hmm. képp ku mu am rek muy doom tuddee na ko Seydina Mouhamed tuddee na Faatumata bintu yaa Rasulullah mm-hmm. kooku def na lépp dëgg la Papa Thione def na lépp Bola dëgg la def na lépp li ko waroon lépp def na ko di ko ñaanal yàlla yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko te tàmbel ko ci àjjana yi gën a kawe euh, di delluwaat di ànd ak waa régie ñu dem xool ci armeer yi ndax bari na artistes yoo xamante ni si ñoo ngi woon ci armeer yi lii rek mooy àddina lii rek mooy àddina euh, tey ji ku ci mel ni sunu Papa Thione sekk Seck mi dëddu danoo gis ni que artistes yëpp danoo jug massivement ñëpp xamante ni si mooy fii ci sëgg yi ci yof mhm. jébbal ko suñu borom dañuy dem seetaan element bobu ba tey euh, su ko defé amna na artistes yoo xamante ni si ñoom ñëpp euh, ñu ngi woon ci cimetière yi euh, ñu seetaan ko daal di dellu soit plateau bi ay ca c'est fini ce sont les dernières minutes les dernières minutes euh, du grand parolier ce sont les dernières minutes du grand chanteur ce sont les dernières minutes sur terre du grand musicien. Ce sont les dernières minutes du grand historien. Ce sont les dernières minutes du grand parolier. Adieu. Adieu. Thione Balago Seck yàlla na la borom bi fay la Seydina Muhammad Khar. ci fi nga xam fan lañ accueillir le jébbal la suñu borom. vous avez vu Wally Seck mi ngi ci biir oto bi ndeysaan di accompagner papam gis ngeen mi ngi noonu di dugg ci buntu bi yàlla na la buur fay képp koo yaakaaroon ci wàllub diine l'islam bi nga nekk rawatina sa sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Seydina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam yàlla nañu la teertu fi nga xamante ni moom buntu ba ngay dugg di dem fekk ji sa borom balago sek askanu Senegal kontan nañ ci yow ñëpp bég nañ ci yow sénégal jooy nañ la afrique jooy na la parce que panafricaniste la yàgg na wax na nit ñi dara mercredi prochain rek amon na rendez-vous ak Idrissa Diop pour benn émission bu mag ci wàllub la paix ci wàllub jàmm fii ci biir réew mi kon mi ngi noonu ndeysaan dugg am caméraman yi dañuy ndax sibiti bokk ndax image bi ngir suturaal ko sargal ko waaw mi ngi noonu ndeysaan waaw fii moom bu ñu fi taxawee xel dañuy yóbbu ci lu bëri ndax kañuy denc ñun suñuy waajur mi ndeysaan daf ñoo bëgg moo tax kenn. mu ngi noonu lii mooy lii wane que ni àdduna lépp ci dëgg lay mujjee euh, bu nu gisee ñu ngi seen euh, sunu papa yu Ndour ñu ngi seen sunu papa Ismaïla Lô euh, ñu ngi seen sunu papa Ouza Diallo ñu ngi seen ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ndaanaan yu bari yoo xamante ni si ñëw nañu ànd ak coon Thione Ballago Seck gunge ko ba ci këru dëgg gi nga xamante ni si moom mooy mujj ñuy wax ni que yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ndax mbooloo mi ñu gis mu ànd ak Thione Ballago Seck xel dina dal. ndax dina ci am ñoo xamante ni si suñu borom dina leen rus lii mooy wan ni que euh, Sénégal ñu ñëpp benn bopp lañu kenn mënu koo xar ñaar euh, lii euh, Binta man xam nga lu ma ciy jàng damaa gis que ni xale yi nañu xool ci lii xale yi nañu xool ci lii te xam ni showbiz day jeex musique lépp lu mën mënti am ci àddina dafay jeex te kenn ñaanul yàlla bis jot ñu jël sa nawle Euh, mu dëdd ñu koy yóbbu euh, di ko jébbal sunu borom fekk doo wax ak moom wala doo juboo ak moom loolu rafetul kon ñun ñëpp nañuy rafetal nañuy xam ni que àdduna lépp dafay jeex ñun ñëpp nañu gën a bokk ndey gën a bokk bàyyi te xam ni bakkan bu ñam dund rek di na ñam dee binta c'est très important sama mag ji euh, fa nga daanalee rek foofu laay tibbeewaat mooy jeunes yi xale yi mm-hmm. ñu roy ci Papa Thione mm-hmm. xool ci Youssou Ndour xool ci Omar Pène xool ci Ismaïla Lo mm-hmm. ndax ñi mag ñi ñoo fi nekkoon avant mm-hmm. ñoom mm-hmm. tey ñoom ku ci nekk ñaan nga yàlla tey sa carrière musicale day jeex da ngay toog donc xale yi fi nekk ñoom ñooy relever defi donc pour relever defi bi nag foog ñu juboo ñu doon benn te xam ni euh, tey Wally Seck naqar bi mu am sénégalais ñëpp ko bokk ak moom ñëpp ko bokk ak moom artistes yi fa nekk muy xale muy mag muy ndaw kenn mënu leen compter euh, Boga ñëpp ñëw nañ ko. man bi ma demee ba gis ko démb euh, lim ma njëkk a wax dani ma kontaan sama xol sedd na. ndeysaan euh, kontaan naa ci ñëw bi nga ñëw te loolu. waali ñëpp la ko wax. li mooy Sénégal li mooy Sénégal. li mooy Sénégal chaque jour yàlla daf ñuy wan boppam. Mhm. ci moment yi ngay xam ñi la bëgg ci moment yi ngay xam euh, ñi la bañ hmm. ñun dañuy ñaanal suñuy waajur rek yàlla may leen gudd fan ak wér mais ku ne méttiwul rek daa fekk ni dalu sa kaw boogaa hmm. naqar bi nag ak tiis bi hmm. ñun ñëpp ñoo ko bokk papa coon suñu papa coon la maa ngi fàttaliku ndeysaan mës naa dem soiréem ñëw sama yaay dóor ma ba may bëgg dee mu tëggaat sayal ma demaat ma ne ko papa ñëwoon naa ci soirée bi samedi bi passé mu ree ma ne ko waaye woyaloo ma abataay bi de te dóor nañ ma ci ba may bëgg dee mu ne ma kon tey dinaa la woyal abataay ndeysaan mm. maturin maturin maturin mbaay di koy tëggal mm. moo xëcc sama loxo mm. yóbbu ma ba ci moom ne gis nga kii xale la waaye da lay bëggee ndax maturin suñu kër la daan nekk tu vois sama yaay ma ko dimbali ma bàyyi ma damaa bëgg Papa Thione ndax Papa Thione li muy woy day dugg ci xol te bu duggee ci xol rek ci xol lay delluwaat donc boogaa addunaa ñàkk àdduna moo ñàkk ñëpp ñoo jooy Papa Thione euh, ba tax na même les lutteurs mbër yi nga xamante ni si sax ñoom ay ay ay ay ay ay ay bërikat lañu ñoom ñëpp am nañu ay kàddu seede jëmale ko ci sunu papa Thione Ballago Seck nga xamante ni si ku ci mel ni Balla Gaye 2 nga xamante ni moom ndaanaan la ci li muy def moom it ñëw na am na ay kàddu yu mu jël euh, jagleel ko sunu jur wii di Thione Ballago Seck nanu ànd ak waa Régis dem seetaan image yooyu te dellu si waat ci plateau ay ca. seen ma lu baax am nga rafet toppal say waajur déggal say waajur tey toppatoo say waajur loolu ku loo koy defal rek ah wax dëgg yàlla nit ku baax la maa ngi ñaan suñu borom nag eh, nga xamante ne dara tawu ko yàlla yërëm ko te xaaral ko àjjana yu gën a kawe moom ñu fa fekk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw sëñ Balla looy wedd looy dénk mbooloo mi nga xamante ne bi ñoo nekk ci àdduna bi te nekk ci àdduna rek te jàpp àdduna moom kër la loolu la dénk ñoom tamit ñu bàyyi xel yàlla. waaw xam nga àdduna moom li ci am solo mooy jaamu yàlla ba xëy dee moom solo ndax kër gi mooy dëgg moo njëkk te mooy mujj te li ma mën a wax daal mooy yàlla nañu yàlla ci lu baax yàlla nañu yàlla ci jaamu yàlla yàlla nañu yàlla mu ngi noonu kooku mooy Balla Gaye 2 euh, moom gis na ñëw na gunge euh, sunu baay Thione Ballago sekk ñu jébbal ko sunu borom euh, di ñaanaat yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla tabbil àjjana yi firdawsi Binta Balla Gaye 2 waaw ku ko xam-xam ne doomu géejawaay bi ndeysaan euh, boogaa li may wax rek. Mhm. Papa Thione àdduna la àdduna la dëgg la. Papa Thione. Mhm. Papa àdduna la Papa Thione démb boo demee ci armée yi ay tuut tànk sax ay xale ña nga fa woon. Mhm. ndax dañu naan ndeysaan ku mu taseel. boo gisee Papa Thione ay bëñam ngay njëkk a gis. dëgg la tànkam lu kenn. ku ko munti woo dina la wuyu wax ak benn femme sànq nee day woo Papa di wax ak moom ba fàttani ne dafa am jabar. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. yaa ngi dégg baat bi bu baax a baax di wax ak moom ba fàtte ni dafa am jabar. ndax disponibilité di jël di toog di mm-hmm. waxtaan ak moom. dëgg la du ko dow mm-hmm. du ko wax dara. Mm-hmm. donc day toog déglu ko. su paree nee na mu conseillé ko. te depuis Papa Thione conseillé ko ba léegi. ci lim koy tere. loolu lay bàyyi. li lim koy digal loolu lay def. Uh-huh. te mosu cee gis lu mu rëccu. nee na tànku kanam rek la ci gis. Hmm. président Macky Sall ndeysaan bañ ko nee Papa Thione dafa gaañu. Hmm. dafa ne perte na. Hmm. son excellence. mu ne perte na xaritam. ka nga xamante ne da daan ñëw toog pale ñoom ñaan ñuy toog boo déggee Papa danaan moom ak Macky Sall du président ak kii ay magax rakk lañ. ay frère lañ. am na solo am na solo am na solo. ay waay lu xew euh, nga xamante ni si. moom mooy euh, Thione Ballago Seck mu dëddu euh, vraiment mu doon loo xamante ni si euh, ñun ñëpp danoo ñàkk ñun ñëpp danoo perte di ñaanaat yàlla sunu borom jébbal ko jéggal ko Ah, yërëm ko te tàbbil koy àjjana si ñun ñëpp tey boo gisee dañuy góorgóorlu rek ah, agendar bi dañu koy jéngu li tax ñu koy jéngu mooy ah, ñun ñëpp kenn mënatul wax ñun ñëpp kenn xamatul looy def parce que nag démb ci di gis nañ samay statut dama ne tey xool yi neexul vraiment xool yi neexul ndax ñun suñu ay téléspectateurs miinoon nañu heure bi daan na fekk ñu leen gunge ñuy kaf ñuy foo ñuy ree ñu leen di bégal bu nu génnee suñu téléphone yi di sonné ku ne dañu wax ni kontaan nañu waaye tey dañuy jël naqar gi ànd ko ak képp koo xamante ni si sénégalais nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew ndax maa ngi jóge Gambie di nuyu waale waa Gambie euh, vraiment di nuyu policeman di ko jaalee coon Ballago di nuyu Saro di ko jaalee coon Ballago Seck tamit di nuyu sama yaay ajaratu Aida sosé, momit it ma nga ca Gàmbi eh, di ko jaale coon Ballago Seck ci promoteur yi nga xamante ni si coon yàgg naa ak ñoom nga xamante ni si wa jii bu ñu miinee Wally mu nekk un grand promoteur moom it ma nga ca Gàmbi moom ñu ngi koy jaale coon Ballago di ko ki nga xamante ni si mooy le grand promoteur waaye tamit di ko jaale Lamine Thiam champions nga xamante ni si ñoom ña nga ca Gàmbi nga xamante ni bëgg suñu sunu ay waykat di leen yóbbu foofu ci Gàmbi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale Thione Ballago Seck dañuy demaat ànd ak waa dem xool ki nga xamante ni si moo di Birane di doom ci Youssou Ndour moom it am na ay kàddu yu mu jël jagleel ko sunu wayjur wi di Thione Ballago Seck ñu seetaan élément boobu te dellusiwaat ci plateau wu agendaaru spécial Thione Ballago Seck ay Sénégalais yëpp tey moom le réveil était très très brutal pour euh,

mën na présager ñu rafet njott si moom. jërëjëf benn conseil rek pour Wally. waaw Wally euh, c'est un jeune tay xëy ñak na pap tis bi dal ci kawam ñun ñëpp ñoko bok mais na xam na ne retrouvé na ay pap yu bëri amna ay frère yu bëri way retrouver na ay frère yu bëri donc na xelam dal te mu gëm yalla Euh, àdduna moom euh, ñëppay dem wuy ji suñu borom yàlla na yéex waaye ñu ngi koy ñaanal mu am xolu muñ gën a takk ndiggam gën a taxaw te xam ne yat bi gën na koo dal. yàgg nañ fay ñëw it euh, soit mu doon ci sa famille wala ci famille yu keneen ndax lii nga xam ne moom moo dal ci famille Marène. dafa dal ci famille askan wi yëpp et li koy firndeel moom mooy coon monument la woon parolier bu mag la woon euh, naam magul woon sax seen fam ci ni mu bokkal waaye moom la yàlla defoon njiit njiitu famille bi euh, donc euh, Sigi Sawal Assane Assane Kaay ñëwal ñëwal ñëwal Kaay <coughs> gis nga Assane Assane Ndiaye ngi xam nga lii mooy wane ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ne ma mbay sigil ndigaale waaw gis nga wallaay kaay eh xam nga lii mooy wane ni ñu ni nee na yàlla xam na ni sax xamoon ni moo nekk ci oto bi waaye lan la def wàcc vitre bi ne ma mbay sigil ndigaale moo tax ma ni ko wàccal parce que moom xamante nañu moom dañu ànd di liggéey mm-hmm. man moom ak Jimi Mbaye mm-hmm. ak ak Ousseyn Ndiaye mm-hmm. loolu du tey yàgg na ci Madison gu njëkk ga mu nekk un frère et moom laa wax nit ñi ma ni leen euh, famille Marène Thione Assane euh, Mapenda ak keneen a keneen. Hmm. Rue 23 la nekkoon. wallaay dëgg la. Hmm. fa ñu dëkk. kër ajaratu ndey Michel Lam. wallaay dëgg la. Hmm. yaayu Mor Dior Seck. waaw ñu jàkkaarloo waaw. ñu jàkkaarloo dëgg la. Ah. ah da ngay jéggi tali rek bi rek dugg. wallaay dëgg la nekk kër Alaaji Yinde Fall. waaw 27 angle 22. donc dafa yàgg yàlla na ko yàlla xare aj yàlla moom moom àjjanaam yàlla na ko sunu borom teeru ci barke Seydina Mohamed li ma gis fii nag moom ah yàlla dañ koy ñaar yàlla bu ko cat jiitu yàlla bu ko cat jiitu parce que euh, comme li may wax rek hmm. ku am ku lay jooyal hmm. waroo jooy waroo jooy te boo fekkee ne yéen ñi nga xam ne sax yéen a gën a jege hmm. mun leen a jot ci moom ndax doomu aadama yi cofeel ah. ak euh, mbëggeel gu ñu am ci moom. Mhm. ah li ñu koy ñaan yàlla rek yàlla bu ko ca jiitu. bi mu fekkee grand théâtre. waaw keroog da nga sukk ci ay ci ay laa am. waaw sama xalifa. Mhm. Mhm. yaay sama lépp. waaw mooy li may wax rek. xam nga nit koy yar Babacar. mooy lépp. yar la. jàngal la métier. ah def ci yow it nag lu mu deful ci kenn nag. dëgg la waaw waaw tey <laughs> moo tax moo tax ma ne. ñi Sénégal ñàkk na. Ah. àdduna ñàkk na ah. mais man ñàkk na. man ñàkk na trop yàlla xam na ko. Amin Babacar Amin Babacar. yéen presse bi tamit ñu leen koy jaale. ndax ñu nekkul ci réew mi ah, bari nañu. waaye ñi ko jot teel koo jot presse moo ko waral kon yéen dañ leen koy jaale parce que leer dama ne ñu ci bari ci yéen mës nañ ko dékk micro. et di ñaanal doomam naan ko yàlla na ko yàlla jox xolu muñ te mu yeggali ak sagoom famille bi it noonu moom laa wax Kéba yàlla na ko yàlla xare àjjana boo xoolee Youssou ngi woon ci biir ah wallaay man dama yeew yéex naa ko yéeg parce que dañ ma fëgg ne ma li xew ah doy na waar yaa ngi dégg noonu man de nii sama téléphone gis numéro Youssou mhm. ndeke woon na ma ca 11h. yaa ngi hmm. ah. am na solo am na solo wax ji Mbaye Dieye Faye wax euh, gis nañu Birane Ndour gis nañu Mbaye Dieye Faye gis nañu Assane Ndiaye waaye tamit am na solo am solo goo xamante ni si dégg nga mu ngi naan ñu ngi koy jaale presse bi kon donc ñun ñëpp ñoo ñàkk euh, ñun presse sénégalaise ñoo ñàkk surtout ñun ñi nga xamante ni si ay jeunes talent lañu di soog a dugg ci milieu bi doon rêvé di bokk ay plateau ak coon doon liggéey ak coon doon xalaat def ay ay édition yu mag coon ñëw toog euh, tey suñu borom euh, mayuñu loolu kon ñun ñi ñoo ñàkk ñun ñi nga xamante ni si ñun ñoo mujjee ñëw ci milieu bi te amuñu woon jotuñu woon am sens def yenn plateau yi ak coon Seck. ñun ñoo ñàkk. ñun ñoo ñàkk ñun ñi nga xamante ne ay animateur animatrice ya nga xamante ne dañuy soog a doon mm-hmm. tey ku ci nekk tey bu doon sa sago di nga toog ak Papa mm-hmm. partager moom même bu fekkee benn 10 minutes la mm-hmm. tu vois ñu koy jaale euh, Keba Seck jooy na ba kenn mënu koo jaale ndax ku ko ko jaal danaan bu leen ma ko jaale Thione Seck suñu papa suñu Thione la ñun ñëpp metti na de. metti na doy na waar di ko jaale tamit sama yaay ajaratu Xadi sekk njiin nga xamante ni si moom mooy yaayu Mbaye si Ndiaye di yaayu Serigne Fallou Ndiaye Benjamin ak Lille Pro suma xarit ñoom ñëpp ma leen koy jaale gumba mi ci Mangu Ndiaye jo moom it ngi koy jaale ndijaayam ji nga xamante ni si moo di Thione sekk man nag cër gi ma ci am mooy ca côté boobu laa ko jaarale. Mhm. muy sama côté sama waa kër Baye Mass Ndiaye. Mhm. nga xamante ni si sama yaay Xadi Seck ak sama mhm. yaay Aram Seck. ñoom ñëpp ku leen xam dina xam relation bi ñu am ak Thione Ballago Seck sama yaay Khady Seck ak Thione Seck bokk ndey ak baay. Mhm. waaye tamit euh, sama yaay bi nga xamante si moom mooy ndey Euh, yaay Bas Mbaye mhm. moom it euh, dana koy jaale Thione Ballago sekk euh, Thione Seck nag mu doonoon ndaanaan boo xamante ni si way na lu nekk way na téere lu mu mhm. way rek téere la mësa doon mhm. boo doonee jeune sax boo bëggee góorgóorlu ci sa àddina bu la yàlla xawee dimbali nga xaw a déglu ay tuuti woyu Thione Seck di nga mën a redressé wu di nga mën a xam fan nga jëm mu doon parolier tey ji ñu ñàkk ko waaye àddina ñëpp ñoo ñàkk Thione Ballago sekk mu doon ay témoignages yoo xamante ni si ci armée yi képp koo xamante ni si artiste nga ñëw nga gunge Thione Ballago Seck. mais Boga Mbaye dañ koy jaale tonton Jo Mbaye Jo Mbaye ndax ku xam Jo mbay xam ko ak euh, Thione Ballago Seck. ku xam Jo mbay xam ko ak Waly Ballago Seck. Mm-hmm. ndax jàpp na ci carrière Waly bu baax a baax ndax Papa Thione dafa jël euh, loxo. Mm-hmm. Waly mm-hmm. jël Jo mbay ne ko jébal naa la Waly Ballago Seck. su baaxee sa doom la. su bonee sa doom la. donc dañ ko koy jaale tonton Jo mbay ñu bokk naqar bi ak yow. boogaa les images parlent. fu mu toll nii ñun wax rek. dañuy wax rek. mais yàlla xam na ni. Mhm. Euh, suñuy xol dafa tooy. dafa tooy dafa tooy. ndax même bu nekkee benn fan. Mhm. bégal nañu. comme li nga wax sànq rek mhm. Papa Thione. képp ku bëgg jëriñu dangay ngay jël ay CD di ko déglu. Papa Thione na lépp. way na nit ni mu dundee ak waajuram. way na doom baay. way na bu waajur ni mu dundee ak doomam. maanaam jur nga doom. yóbbu nga ko ci daara. jàngal ko ko alxuraan. wan nga ko ni ñuy jullee mm-hmm. wan nga ko ni ñuy jaamoo yàlla mm-hmm. am na solo am na solo solo mm-hmm. am na solo loolu mooy wayjur ak doom euh, ki nga xamante ni si moom mooy Binta wax ji rafet na am na solo waaye tamit du ñu des euh, dañuy àndaat ak waa régie dem seetaani éléments yi nga xamante ni si jot nañu ko gis euh, fële ca armée yu yoof ku ci mel ni Youssou Ndour am na moment boo xamante ni si dañ koo gis mu toog waaye moment boobu mu doon moment bu difficile. ci mhm. Youssou Ndour nekk mhm. moment bu difficile euh, ci képp koo xamante ni si euh, dëkk nga ci réew mi. Mhm. Euh, nga doon waykat ak wala nga doon loo mënti doon rek coon sekk dem na ci sa xol façon dem boo xamante ni si bi nga yéegee nouvelle bi dangay ngay doo xam looy def. na nanu ànd ak waa RIS dem seetaanaat éléments yi nga xamante ni si amoon na fële ci armée yi mu ñu dellu soit ci plateau bi ndax tey dañoo jël agenda spécial jagleel ko coon. Ba Laago Seck. ayca région ñu dem xooli élément boobu te dellusiwaat ci plateau bi. doy waar mu doy waar lool mu doy waar lool ku gis image yi nga xamante ni si mooy jigéen Ndour toog gi mu toog Euh, toog euh, bi mu toog ci ci ci ci armée yi ak Papa Diouf le leader de la génération consciente waaye Ismaïla Lo moom it ñu koy séen mu doon ay image yoo xamante ni si euh, ñëpp danoo bokk Binta man li tax ma xam ni ya yàlla ay mbiram dafa doy waar. mooy da ngay xool bu njëkk ba. musique amoon na rivalité. Mhm. concurrent amoon na. Mhm. ñoom ci seen génération. Mhm. waaye mosuñoo gis. lu ñaaw ci seen diggante mosuñoo dégg lu ñaaw ci seen diggante loolu moo waral tey bi Thione Ballago Seck dëddoo ñu gis ni képp koo xamante ni si bokkoon nga ak moom génération da ngaa ñëw gunge ko ba pare da ngaa yëkkati ay kàddu yu rafet seede ko ci moom ku ci mel ni Youssou Ndour ku ci mel ni Mbaye Dièye ku ci mel ni Ismaïla Lo ku ci mel ni Père Ouza ah, bari na génération boobu ñoo xamante ni ñoom ñëpp dañoo ñëw def ay kàddu seede jëmale ci Thione Ballago Seck mu doon ay image yoo xamante ni si image yu doy waar la. boogaa àdduna lépp teranga la donc boo ci nekkee na rafet rek. lay dëgg la lay dëgg ndax euh, li Papa Thion am nii. Hmm. ñu ñëpp ñu ngi ñaan yàlla. Hmm. bés bu ñu fi làkkoo ñu am ko. lay ndeysaan ndax kàdd gu rafet du la nga hmm. xamante ne da nga koy sosal nit. la nga xamante ne moom moo ko liggéey. Papa lépp lu ko nit waxal. ci moom la nekk. boo waxee Papa Thion ñu ne la Papa Thion dafa dëgg. dafa direct effectivement. boo waxee Papa Thion ñu ne la Papa du jëw nit. te yow boo xam nga Papa Thione mhm. man xam naa Papa Thione lu mu ragal wax ni toog fay jooy dafa mhm. direct mhm. ba àdduna ñëpp seedeel ko euh, directam bi mu direct li nga wax rek ñoom ci seeni temps rivalité bi am ni jamono ji ci musique sénégalaise mosul am daal nañ laale mais peut sax balaa duñ ko xam ndax fu ñu tase dinañ kottante dinañ kaf dinañ foo dinañ ree donc man damay waxaat jeune artistes yi rek ñu xool ci ku mel ni Papa xool ku mel ni Youssou Ndour xool ku mel ni Ismaël Lo xool ku mel ni Omar ndax ay référence bu ngeen xoolee ci ñooñ rek aar bi dina jaar yoon boogaa c'est très important c'est très important euh, bakkan bu mos dund nag dina mos dee loolu moom wax dëgg yàlla nit bi ñun ñëpp xam nañu ko ba tax na dañuy delluwaat ci yàlla gëm yàlla te xam ni lii mooy ndogal bi yàlla dogal li tax àdduna yéeme mooy bu nit dëddoo nit a ngay juddu bu nit dëddoo nit a ngay ngénte bu nit dëddoo nit a ngay tuddal bu nit dëddoo nit ngay feete anniversaire bu nit dëddoo nit a ngay am bànneex bu nit di am bànneex nit ngay am nakar mm-hmm. borom ba bis dafa am ñoo xamante ni si ñoom ci la ñu juddu ñoom it dañuy profité di leen souhaiter joyeux anniversaire sunu mm-hmm. borom may leen gudd fan ak wér yàlla musal ci ak musiba ak ku ci sama Dom ji nga xamante si bébé Mohamed mm-hmm. kooku nak Pape Boy Mohamed moo ko jur waaye ki nga xamante ni si mooy yaay ja moom it tubaarkàlla Télémusik Sénégal rek lay Fatima ans ba tax na bébé Mohamed ñu ngi koy souhaité la totalité na dund cent ans sans ordonnance na fekkee njëriñu way juróom yi na dund na dund te am njëriñ te doon magub lislaam lu mu dund rek doyul kooku nag suma doom la ndax papaam suma wëllëre la suma xarit la ñu naan ko paboo yi waaye Fatima mi nga xamante ni si mooy yaayam moom it ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram bintaa yaakaar naa ni émission bi jeex na aca mhm. mhm. Pose borom 5 étoiles Diallo Pose borom 5 étoiles ah, ñu ngi lay ñaanal gudd fan am gu ànd ak wér nga yàgg ko feete gën a dund gën a mm. yàgg mm. gën a wér yow mi nga xamante ne mm. suñu kanam yi bu rafetee yow la loxo yi bu rafetee yow la bopp bi bu rafetee yow la jàll pose taalibe Serigne Babacar si nee naa ko yow dañoo bokk la nga xamante ne mënuñu koo séddoo muy Serigne Babacar donc yow dama lay ñaanal ci barkeb Serigne Babacar si nga dund ba dund sàpp la sa doom lay li mooy àddina li mooy àddina ñu ngi koy souhaité la totalité Diallo yow dundal amal jàmm dundal ba ñuy féete anniversaire bi ay ati ati at mm. di la ñaanal yàlla suñu boro musal la muccal la te làq la fu yàq agul mm. euh, ci daraje yi Seydina Muhammad Binta ñu ah, tàggoon ak te xam ni yaakaar naa ni euh, lu ñu ñu cërale woon ci ay waxtu jeex na ma bàyyi la nga tàggoog sénégalais yi lay seetaan waaw boogaa di kontaan ci waa Sénégal mm-hmm. di am contentement tamit bokk ak yow sama mag bu ma ñàkk ki bi bi sangooni biram jigéen daam ngooni mbooj mbaay yow mi nga xamante ne dangaa bëgg bintaa hmm. ba yemale woo ko dara donc waa Sénégal nag hmm. tey hmm. ñu bokk naqar bi ak yéen donc émission agenda tey nii la mënoon demee spécial euh, Papa Thione donc dañ leen di jox dig daje ba suba incha allah rek ci beneen agenda. ci beneen agenda ñu waxtaanee ko ñu waxtaanee ko. ayca mu ngi noonu semaine bi yëpp nag dana koo jël jagleel ko ki nga xamante ni si moo di Thione Ballago Seck nga xamante ni si légende la ñun titre la sac la euh, ci ñun ñi nga xamante ni si dañoo doon ay sénégalais ndax bégal nañu euh, partout dans le monde sunu borom jël ko nag ñuy ñaanal yàlla yàlla bi nga xamante ni si mooy borom na am mu am lu mu def rek noonu la te it lu mu ñu teg rek dañu koy tegoo di ko yàlla sunu borom yërëm ko jébbal ko tàbbil ko ci àjjana yi gën a kawe mm-hmm. ci moo xam ne bi nga xamante ni si moom rek la bëggoon ndax woyee na ko fu nekk mm-hmm. lii nag mooy agendaaru tey bi semaine yëpp dañu koy jël jagleel ko suñu wayjur yi nga xamante ni si mooy coon bàllaago sekk dañuy tàggoo à demi soir comme chaque bon bonsoir ñu bàyyi leen ak capsule bi coon bàllaago sekk defoon su ko defee ñu joxante rendez-vous ba suba ak jàmm capsule bi nag 2014 la ko defoon te bu suba ak jàmm dineen gën a mën a ñëw gën xuus euh, ci projet yi coon bàllaago sekk amoon ci digganteem ak télé musique Sénégal À demi-soir comme chaque soir. Et bonsoir. Salam alaikum wa Sénégal. Salam alaikum wa Sénégal. Salam alaikum wa Sénégal. ñetti nous dama bëgg ngeen bu baax bind télé bi télé musicale bi am ci Sénégal ñu man ak yeen ñu fay ci télé musicale ndax affaire bi dina am

léegi daaj dégg bi ak na koy jëfande moom la télé musicale bi di dëxëñ génneel la ingrédients yeeg yokk ci tuuti aromasi ramdan wala ba ko ba ba nga xam ne di nga sentir na yaa ngi soog a jot musique ba benn salaamaaleykum waa Sénégal bii nag bii nag ñoo ko moom ah télé bii nag ñoo ko moom parce que bii suñu télé la c'est une télé musicale pour la première fois sax mu am sax Sénégal ben télé musicale moo bi mom ñoko mom mu nek télé musicale xawma nak nu muy démé mais il faut que yéen ñëpp ngeen ànd ak man ñu sobu ci géeju télé bi parce que ki man may parrain bi. Eh, ñu defal ko ñaan eh, manam mu jéggi pax yi nga xamné moy eh, mooy képp kuy ubi télé benk ñenk yeeg affaire coow yeeg lépp ndeysaan mu. doo leen mbotti bu bu neex waaye mbotti géwél mbaay bu saf sap bu ñu crémeraam daan donc bii moom ñoo ko moom